de retour sur ce plateau pour la seconde partie de cette émission ñu daal di dalal comme vendredi bu jot nuñ koy defee Babacar Dione pour les analyses la semaine ñu nuyu la Babacar dalalaat la ci plateau bi. lay fay Astou di am mbégte ñëwaat ci plateau bi c'est vrai que vendredi dernier dañu amoon empêchement yaakaar na mhm. mais tey c'est avec un grand plaisir ma ñëwaat ci plateau matin bonheur. moo nekkoon Arafat moo taxoon ñu. jagleel c'est vrai Arafat actualité bi en tout cas si un peu euh, donc euh, fourni muy euh, démarrage campagne électorale waaye également démb ak sortie procureur bi nga xamante ni wax na ci les circonstances wala boog un peu apporter des détails sur la mort de François Mancabou première analyse gis-gis nga xamante ni def nga ko comme si fond bi comme sur la forme de de son oui je crois que ñu bëri même organisation des droits de l'homme yi jot nañ cee wax mm. Euh, man je crois qu'au Sénégal il y a trop de morts il y a un trop de morts surtout bu fekkee si lieu lieu de détention quel que soit par ailleurs la gravité bi tax ñu accuser nit ki euh, nit ñi ñi dee dafa bëri bu fekkee yow euh, force de l'ordre yi mu nekk mu nekk Dantec mu nekk feneen ah fi nga xam ni lieu de privation de liberté la nit man faa ñàkk bakkanam c'est toujours regrettable parce que quand bu fekkee kooku jël nañ ko en en kii sécurité je crois toutes les mesures devraient être prises pour que bakkanam bañ a te loolu je crois que euh, ak marche yi manifestation yi am dafa bëri loolu il faut que nit ñi di ci taxaw il y mm-hmm. trop de morts au Sénégal te lépp nag lu am rek que ni euh, bu fekkee force de l'ordre yi dañ di joxañ baaram ils ont une grande part nag de responsabilité ah nos nos services de de de sécurité ci li am loolu c'est maintenant bu ñuy duggaat dans le fond euh, moi je crois que euh, ñi ko jàpp amuñu woon intérêt pour ki nga xam ni moom moo gaañu gaañu parce que bu fekkee dañ ko accusé mu nekk ci enquête moom mu décédé avant que sax enquête bi pare je crois que ça n'arrange pas les enquêteurs yi nga xam dañ ko teewoon pour xam ni parce que tamit quel que soit euh, nombre de morts yi ñuy wax ça ne peut pas occulter la gravité bi nga xam ne moo tax ñu ñu ñu ñu ñu jàppale ñu tee leen il faut pas que quand ñu essayer noyer le, le, le poisson dans l'eau ça veut dire quoi il y a des choses qui se passent au Sénégal depuis quelque temps et je crois que muy procureur muy les informations yaa mooy que ni il des personnes dans le cadre de ce qu'on appelle les forces spéciales dañ doon préparer mener des actions yoo xam ni euh, contre la la sécurité de de l'État et autre mm-hmm. defuñu ko mais les informations qui étaient fournies ba léegi kenn waxul ni amul yoo xam ni qu'on a donné euh, dont on a donné les noms de pères euh, de maire fi ñu dëkk ñëpp wax leen ni lii moo tax ñu jàpp leen am ñoo xam ni dañu leen a fekk ak ay ngànnaay je crois que il faut que tamit Sénégal de temps en temps ñu taxaw di waxtaan il faut pas que ñu ne dana way on tue on tue non c'est vrai parce que Sénégal aussi tamit loolu la ñuy la ñuy dund depuis quelque temps coow day am Euh, coow li bëri bëri ba nga xam ne on a tendance à oublier même li nga xam ne moo xew. Mm. c'est des personnes qui son accusées hein, de fomenter des coups à partir de d'éléments donnés ñu ne dañu leen a fekk ak ngànnaay loolu ba léegi kenn weddiwul loolu l'enquête se poursuit mais c'est vraiment regrettable à chaque fois que lieu de détention parfois même pour des choses banales nit ki di ñàkk kenam mais nag il faut qu'on revienne à des choses yoo xam ni c'est des choses très graves wax naa la ko fii benn jour ma ni ces accusations là sont tellement graves que man ànduma ñiy wax rek bëgg a banaliser ces choses là mhm. parce que il faut faire la différence entre les hommes politiques les militants yi nga xam ne dafa am position ci affaire yi te ñoom lañuy ñuy gën a dégg ak le sénégalais bi nga xam ne bëgg na xam li xew sénégalais yi dañoo war a xam li xew lan la bu fekkee y des personnes yoo xam ne dañoo am ngànnaay ñu jàpp leen topp ba nga xam ni ki si mujj jàpp nee nañ xaalisam moo doon dugg mu ko reconnaître ni joxe na xaalis te xamul nag lan fan la dem il faut que foofu tamit ñu taxaw fi tout en dénonçant les morts mais dañu war a wax également que ni loolu bu amee ce serait extrêmement grave te bu fekkee c'est des partis politique qui son impliqués dans ces affaires ce serait encore beaucoup plus grave enquête baa ngi dem kenn waru mën see wax mais nag tout dénon dénonçant vraiment ay nit yu ñu jàpp li bi wax dëgg la bu fekkee li ko nit ñi tontu laa wax je dëgg la parce que yow mënoo ne yow dama am élément wu treize minutes mais comment la personne peut se cogner ah sur un mur yow treize minutes ñuy filmer te kenn deful dara pour man koo téye ça ça vraiment c'est c'est marrant c'est que yow yow waroo mën a wax ni pendant treize minutes kii maanaam dafa doon suicider wu mais qu'est-ce qui a été fait pour l'empêcher de se suicider finalement loolu mooy tax xel ñaar en plus am na Seck Mamadou Seck je crois tamit de la même manière mhm. ñu ne évasion dafa am pour quelqu'un qui est extrêmement malade c'est un c'est un problème plus que nit ñaa ngi wax ni maintenant il faut mais, que mais mais euh, lan moo indi c'est-à-dire euh, l'opinion wala ñu ci bëri di ne il y un flou euh, avant la sortie du pro du procureur ak bi procureur bi waxee ba noppi lan moo waral c'est-à-dire si analyse peut-être la communication depuis euh, histoire bi commencé ak léegi ak bi sorti bi procureur bi defee sorti euh, apporter des détails par rapport à ces faits euh, selon vous lan moo tax euh, loolu di am wala euh, yenn qualification yi ñu koy teg ci non c'est que que procureur bi warul nëbbal les forces de sécurité seen i njombe attention parce que loo tamit même l'enquête gis nga ñu ngi koy wax est-ce que daf ko war a dénk dikk qui est quand même des de la police nationale je crois que foofu man foofu la ñuy am que ni euh, la am xel ñaar par rapport au comportement du procureur il faut pas que ñu considérer que ni c'est les c'est l'État les service de l'État dañuy ànd manko contre les autres citoyens c'est que et malheureusement Sénégal loolu fi am muy fonctionnaire yi képp koo xam ne da nga nekk si état il y une certaine solidarité boo xam ne ñoom dañ ciy ànd même bu jombe amee wala ñombe amee ñu jëm koo nëbb contre le dara que Sénégal c'est une nation ñëpp ànd ñëpp l'état maanaam ñëpp ki nga xam ni privé bi la nekk ki nga xam ni c'est un homme politique nekkul ci administration ak ñëpp ñoo am il n'est pas question que le procureur di nëbbal les forces de sécurité seeni njombe parce que dem na ba naan c'est vrai que loolu ce sera versé dans les dossiers mon enquête tout ça non le problème mooy que nii bu fekkee vidéo bi jël nañ ko pourquoi on n'a pas empêché Euh, à cette personne là de de se suicider bu fekkee loolu la bëgg loolu la bëgg a gëmloo nit ñi pendant treize minutes rien n'a été fait maanaam flux yi loolu la. Mhm. flux bi en un moment donné bu fekkee on a euh, on a amené des faits graves yoo xam ne dañ ko teg joxe turu ñi nga xam ni ñoo ci nekk joxe seen i turu yaay seen i turu papa wax fi ñu dëkk te personne jusque là n'a dit que loolu amul man loolu c'est un premier fait. Mhm. mais bu fekkee enquête baa ngi dem il n'est pas question joxe nañ ko mën nañ dem ba si biir parce que quand même c'est des yoo xam ni euh, mën nañu mën nañu wax ni ñoom ñoo ko def enquête baa ngi dem mais nañu bàyyi le procureur en premier lieu dafa war a bàyyi enquête bi dem mais bu bañ a jàppale kenn te on a l'impression que li xew avec avec euh, la mort bi nga xam ni si lieu de détention la amee que le procureur dafay jéem am lu muy làkk lu muy nëbb bu waxam leeroon par rapport à ce qui s'est passé ñu leer ñu ni kat bu fekkee les services de sécurité sont fautifs wala ñi nekkoon yore sécurité euh, euh, euh, du du du du décédé def la ñuy def ñu sentir ko si ay propos peut-être xel du ñaar mais malheureusement on a l'impression que le procureur dafa am ñu muy protéger ci bu mu waxee. mu nekk ñoo ñoo xam ni dañu leen euh, teg loxo ci ay veillu manifestation ñu ne dafa am lu ñu doon waajal loo xamante ni ay jëyee la pour pour réew mi. Hmm. tey bu ñu demee à quelques jours des élections ñuy assister euh, genre fait yu mel nii. Euh, lan la ñu mën a xaar ci wàllum c'est-à-dire avenir politique gu Sénégal en tout cas ci lendemain yi nga xamante ni ci la ñu jëm. y a de quoi avoir peur même si quelque part ñu ñu d'accord ni dénouement am na un peu avec la décision prise par Yewwi d'aller aux élections euh, gis nañu ni ñi ngi def campagne même si avec euh, ce qui s'est passé ak Guédiawaye mais loolu je crois que euh, ça n'entache pas trop campagne bi nga xam ni ñi ngi koy ñi ngi koy def ah je crois que am na changement de cap par rapport au discours des hommes politiques ñuy seetlu depuis quelque temps au Sénégal nag c'est vrai li nga wax euh, euh, pré euh, pré campagne ah wala campagne yàgg na am coow mais fii nag dafa dafa doy waar parce que bu fekkee dañu ne c'est des gens on a voulu wala on veut même comparer entre li nga xam ni moo am temps u pedes nga xam ni il des personnes qui ont été accusées ne Libye lañ jóge mhm. indi ay armes te on s'est rendu compte que bi <laughs> billet d'avion yi palais eh, palais lañ ko jëndee parce que en ce moment là il y avait Jean Collin et tout ça nga xam ni seetuñu dara mais léegi loo xam ne boo ko defee la minute qui suit les gens ont la possibilité de diir que li amul. Mm-hmm. man je crois que aujourd'hui li gën li gën mooy que ni nañu bàyyi l'enquête se poursuivre mais par contre du ñu mën a d'accord ñi nga xam ni ñoo mëne enquête bi à commencer par la procureur. Mm. di am kàddu yoo xam ni dañuy xool fan la féete loolu je crois que day yokk ci violence quand les sénégalais parce que sénégalais yu bëri ñiy wax bokkul ak sénégalais yu bëri yi toog di xool fan lay mujjee attention maintenant nag coow li dafa bëri Sénégal ba nga xam ni on a l'impression que lépp day jaxasoo non mënul jaxasoo parce que plus ñuy dem les gens comprennent ce qui se passe mais nag il faut pas que les autorités daal di am par parloo surtout par rapport à la justice. dans ce cas toujours dans la communication est-ce que tey euh, mën nañ ni dañoo war a xaar opposition bi wax ci walla yenn leader politique yi wax ci euh, euh, moment bi nga xamante ni enquête bi mi ngi. mi ngi déroulé wu. Ah, mais bon par rapport quand même euh, au décès au morts dome loolu c'est normal que ñuy dégg quand même les hommes politiques quelque bord qu'ils se situent daal di dénoncer loolu même Benno. war nañu mën a wax ci loolu hmm. mais on a l'impression que dans cette affaire là c'est une crise entre l'opposition et le pouvoir alors que demeewul noonu je crois que ni opposition ak euh, les organisations de droits de l'homme di dénoncer euh, politiciens yi également muy Benno mu ñeneen dañu ko war a dénoncer parce que vraiment lii am li am il faut ñu wax maintenant am na fu mu war a parce que mooy li ma wax rek keroog rek euh, Sénégal buy toll fenn fii di dem il faut pas ñu ne nag dara baaxul table rase la lu ñu wax rek non baaxul baaxul parce que les gens qui le disent am nañ ci intérêt. Mm-hmm. am nañ intérêt que ni dara baaxul bu fekkee bu fekkee procureur wax na nga ne non non procureur bi tekkiwul dara bu fekkee justice jël na décision justice tekkiwul dara loolu c'est une méthode c'est une stratégie que l'on fait pour mën a discréditer toutes les décisions mm. yoo xam ni qui émise été par la justice te loolu nag ça ne peut pas prospérer ca ne peut pas prospérer. Il y a beaucoup de failles dans notre pays concernant l'administration, concernant la justice, mais dire que tout ce qui se fait tout ce qui tout ce que fait la justice baaxul tout ce que l'administration pose comme acte baaxul loolu man je crois que ça peut pas prospérer dans notre pays parce que d'autant plus que quand même dundu nañ fi yoo xam ni des choses yoo xam ni ñoo gën a graaw am na fi ay pouvoir yoo xam ni ñoo ëppoon doole foofu le président Macky Sall jaar nañ fi mais finalement ils ont fini par je crois que li ñu am nañu garder li nga xam ne akki la li nga xam ne des na nañu gën a xeex pour gën koo gën koo gën koo jubal. l'autre point mooy euh, coow li nga xam ne am na depuis début pré campagne beeg léegi mm. euh, surtout ci côté opposition bi et finalement on va dire tout ça pour ça parce que finalement ils vont se rendre euh, dinañ dem bokk ci élection yi comme ni ko yoon mayewee mooy di ak seen liste de suppléants ku ci mm. mel ni Yewwi dinañ dem ci élection yi dinañ daal di taxawal li nga xam ni. moom lañ doon ŋàññi depuis le début. on pouvait s'y attendre que je crois que man li ma gisee mooy que ni. stratégie yi ak opposition mooy que ni mettre la pression euh, ba ba ba sës c'est c'est fait normal parce que yore liste boo xamee ni je crois que y a y a à régler man euh, peut-être que moment boo xam ne tolloon na foo xam ni rapport de force dafa amoon entre Yewwi ak euh, ak ak ak Macky sal on peut l'appeler ainsi. mais mais am nañ ci ndam wala wala wala dañ naan. non non non non non non non ndam ndam ndam manu see am par rapport à cette élection là parce que dès le départ dama la wax ni nii ñuy xeexee amul mucc mënoo ñëw si manifestation daal di ne bu ma demul élection du am tey gis nga loolu dañ koy noter contre les discours de Yewwi parce que il faut pas que bu fekkee président Macky Sall wala ba si Ablaye Wade dañ leen di jiiñ wax waxeet te opposition bi wax waxeet bi dafa commencé bëri seen i wax. man je crois que un opposant quel que soit par ailleurs li ngay mobiliser ci force il faut nga éviter di wax loo xam ne du am mu jël. bu fekkee da nga ni du ma def élection bu amul Barthélemy Dias ci boppam nee na du ma def campagne te ànduma seeg sama doomu ndey Ousmane Sonko bu defee campagne ça veut li mu wax defu ko. à plusieurs reprises dégg nañ ko également mu naan troisième mandat président Macky Sall euh, euh, euh, yoon la parce que moo ko wax nit ñi dégg ko. Mm. dégg nga ko barki démb également mi ngi xam ne waxuma ko. il faut que ça soit sûr et clair bu fekkee dañuy accuser le président Macky Sall muy wax comme si troisième mandat bi wax na ni moom mënul defaat troisième mandat président Macky Sall ñëpp dégg nañ ko Abdoulaye Wade loolu la waxoon te loolu bokk na si li ko ñàkkloo président Macky Sall loolu la wax bëgg delluwaat ginnaaw rétrogradé comme Mimi bii di def campagne moom di boppam moom wax na mu leer nañu ne ne président Macky Sall mënul def troisième mandat mais loolu boo ñëwaat di koy wax ñu la koy ŋaññi yow opposition bi di la ko wax ne la yow da wax waxeet il faut pas que également les leaders de l'opposition di def li nga xam ni au pouvoir ñu ngi koy def bu fekkee dans l'opposition ñu ngi koy def kon bu ñu faloo mën nañoo am yaakaar ni lii ñii di def rek la ñuy defaat il faut que chacun aussi sache raison garder xam ne yow li ngay wax parce que l'opposition doit être aussi responsable que le pouvoir bien que le pouvoir muy Macky Sall ñeneen la ñu dénk suñu suñu autorité ñoom ñoo yore li ñu yore et il bénéficie des moyens de pour def li ñuy def mais opposition bi également du point faut que lu ñuy wax xeex booy mënee mën nga gagner mën nga ñàkk mais il faut pas mettre sur la balance l'orgueil la fierté l'honneur ba nga xam ne après ëllëg au au au bout on se rend compte li nga waxoon yëpp defoo ko wala amul te est-ce que dañ naan euh, tey l'autre euh, partie de l'opposition si je prends le cas de Aar Sénégal les serviteurs et tout ñi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne du du ci violence wala di euh, braver des interdits des autorités si la ñu war a mën amee lu ñu bëgg ñoom en tout cas en grande partie sont pas d'accord si genre forme de de résistance yooyu noonu est-ce est-ce que dañ naan leen tey dañoo am dëgg si seen kaw ou pas man xam nga man xam nga ce sont mes amis hein mais je crois que cette autre partie de l'opposition c'est la béquille qui n'empêche pas de marcher mmh. ça veut dire quoi mhm. euh, ay leader la ñu ñu respecte respectable mhm. mais man je crois que le jeu c'est entre Yewwi ak euh, Macky Sall ou Benno en fait c'est ça c'est ça la réalité politique du Sénégal euh, dualité am na dualité am na te dualité bi sax dem na ba nga xam ni entre Ousmane Sonko ak Macky Sall et c'est une dualité euh, boo xam ni c'est une dualité imposée est circonstanciel parce que euh, euh, Ousmane Sonko par rapport à une bonne communication il a réussi à se positionner en challenger de fait du président Macky Sall mais ni les élections les scores yi mu am ni le processus électoral ba mu yegg fi mu yegg euh, euh, joxu ko mu nekk comme ni mu doon amee entre Abdou Diouf ak Ablaye Wade wala yooyu ak yooyu mais aujourd'hui quoi on dise la réalité des faits loolu la parce que circonstanciel mooy xoolal fi mu nekk nii booy xool assemblée assemblée nationale. c'est le PDS du point de vue de l'opposition qui est majoritaire. ah boo tax bi ñuy wax leader de l'opposition dañu ne woon Ousmane Sonko la euh, Ousmane Sonko waa PDS bañ ko. booy xool également ni jeu politique bi demee élection locale Yewwi de fait. dualité la créé ak Macky Sall. Mhm. mais Ousmane Sonko en tant que tel élection euh, présidentielle yi nga xam ne 2019 il est sorti il est sorti lan troisième moo tax ma ni la c'est une dualité de fait et circonstancielle parce que Idrissa Seck bu fekkoon mi ngi opposition ba léegi dualité boobu ce sera entre Idrissa Seck ak Macky Sall. tout maintenant c'est au fir du temps avec ces élections là que Ousmane Sonko va confirmer son leadership de fait dans dans l'opposition wala boog électoral dans l'opposition parce que il y a un leadership de fait boo xam ne mu ngi koy incarner selon les circonstances yi nga xam ne imposé et puis également les les fautes de Benno yi nga xam ni foo fu son ko waxee mel ni voilà quoi c'est le seul song song ba nga xam ni ils en ont fait euh, un challenge vraiment assez assez important euh, et assez lourd contre le président Macky Sall. mais bañ a bañ a nekk peut-être alter ego ou vis-à-vis wu Benno je prends je fais allusion à Aar Sénégal. Hmm. loolu taxul ñu ñàkk am poids wala. cest à am nañu ay nit am nañu ay nit yoo xam ni yu am euh, yu am kilifteef la xaw mën nag c'est le bon terme si wolof. Hmm. en tout cas parce que Aar Sénégal quand même dans un même group Thierno Alassane Sall. ah quand tu as Thierno Bocoum euh, Abdourahmane hmm. c'est des leaders montants hein, de l'opposition au Sénégal parce que ñoom ils se ils se ils se positionnent en troisième voie de l'opposition mais man dama yaakaar pour man de ni Sénégal la di demee surtout des élections législatives les gens risquent de voter utile voter utile mooy lan bu fekkee yeew yi dafa taxaw daan ne cohabitation moo ko tax a jóg mais les Sénégalais qui sont contre le président Macky Sall peut-être ils vont aller même qui sont à Aar Sénégal risquent de voter yi ak wàllu parce que foofu la affaire bi di donc il vont dire que ñii dama leen di jox doole pour ñu mën a def face au président Macky ñeneen ñi nga xam ni peut-être bëgguñu président Macky Sall ñàkk dañuy voter ak Benno ils peuvent être victimes de ça même si quelque part ailleurs ñoom seen parcours ak lépp wane na ni bu fekkee assemblée rek moo tax a jóg Sénégal ah. ay nit la yoo xam ni mën nañu représenter. Mm. mais yow xam nga di élection euh, législative yi mais foofu nag mais foofu nag moo tax xëy na sax ñu bëri di laaj ci sénégalais. Mm. moom ci lan lay voté euh, évoqué nga vote utile. Euh, est-ce que sénégalais dina voté programme est-ce que dina voté peut-être en tout cas y a beaucoup d'interrogations par rapport ak forme de vote wala boog motivation. de vote yoo xamante ni mooy tax sénégalais li muy voté bëri na parce que bu fekkee. Euh, parce que c'est huit coalitions c'est ces huit coalitions et on en parle peut-être ñett ñi la wax wala wala wala ñaar yi donc et les autres il peut y des des surprises wala des coalitions yoo xam ni dañuy tirer leur épingle du jeu tu te rappelles selon les élections législatives yaa ngi rappelé bés du ñàkk am na moment boo xam ni dafa yëngatu woon mm. pur après génn il y toujours dans les élections législatives au Sénégal euh, des forces yoo xam ni ki émergent mais après day mel ni après euh, c'est pour ces élections après dégg la dualité reste constante entre euh, le leader de l'opposition ak euh, ak ak Benno bi nga xam ni moo yore pouvoir bi ça c'est vu hein avec euh, Abdou Diouf avec Abdoulaye Wade tout dañu dem élection législative benn force jóg ñu ne kii de vraiment ti parce que législative aussi li mu demee mooy les coalitions ne sont pas pérennes coalition c'est des coalitions circonstancielles xoolal muy bunt bi xoolal la muy euh, muy euh, muy parce que gars yi dañuy am ñu ñuy investi dans les localités mais ñoom ñu si bëri bu ñu gañee dañuy dellu fi ñu dem wala ñu demal seen bopp mm-hmm. ñu ëtt base maanaam c'est des trucs hétéroclites yoo xam ni mënoo see basé wu daal dina ñii kat dañoo taxaw pour dem rien ne peut prouver que aujourd'hui euh, muy Thierno Bocoum surtout nag c'est une coalition très forte à Thiès ah oui. et, c'est très important loolu ñoom il faut pas qu'ils perdent ça de vue mm-hmm. les leaders location parce que fu Thierno nekk ñu euh, koy di Thiès ah. le le juge Deme. ci la nekk Thierno Alassane il faut que surtout Thierno Alassane qui est la la tête de liste il faut que Thiès ñu am fa résultat yoo xam ne day day joué. Mm. parce que dès lors que ñu am quelques députés ñu ne ils ont perdu Thiès la truc ça peut jouer également sur l'avenir de la de la coalition. D'accord. mais quoi qu'on dise c'est une coalition qui euh, est composée de beaucoup de leaders quand même. démarrage wu campagne bi. timide on dirait que c'est assez mais tabaski bi la. gars yi xar yi euh, digéré wuñu digéré wuñu woon xar yi. pas en tout cas du du du côté de Mimi parce que moom moom moom mi ngi mi ngi mi ngi déroulé. mais boo xoolee sax boo xoolee sax yaa ngi gis euh, gars yi seen déclaration man li ma seetaanagum yëpp je crois que y a Benno moom moo def animation. Mm-hmm. moo def genre caravane quoi. les autres euh, visites de proximité yi lañ jël. Mm-hmm. yaa ngi gis démarrage campagne bi ñu bëri dañu changer seen agenda daal koy def visite euh, de proximité auprès des chefs religieux. parce que ils ont compris que Sénégalais yu bëri sentir guñu campagne bi boo wootee mën nga bañ a gis kenn. Mhm. c'est vraiment très timide ah bennoo nga gis. Euh, ñuy dem parce que ils ont peut-être des leaders yoo xam ni euh, localité ñuy dem Dagana avec Omar Sarr ak yooyu ak feneen boo demee Matam di nga fekk ay leaders yoo xam ni qui se sont déjà préparés de la xaar loolu la majorité aussi di jariñ parce que am nga ñoo xam ni c'est des directeurs généraux c'est des ministres mais ñeneen ñi l'opposition nga xam ni est en train de trouver ses marques bu jógee man maa ngi gis sax ay message ñu naan les leaders de Yewwi war nañu commencer. war nañu commencer Barth a démarré. ah oui Barth moom a démarré. Mm-hmm. Barth et puis il est confiant. Euh, il dit que ak ce qui s'est passé hier. Ahmed Aïdara voilà ak Guédiawaye loolu aussi je pense taxaw. parce des violences moo nekk ci ci du yoon du yoon Guédiawaye nag je crois que aujourd'hui autant pour Benno nañu reconnaître que ni Ahmed Aïdara wax naa ko ci je crois ce plateau nañu reconnaître ni Abla Ahmed Aïdara mooy maire u Guédiawaye léegi. ñu nangul ko ko xam ne nag maire c' est pas n' importe quoi c' est pas n' aussi na sol mbubu maire na mu campagne woon pour man euh, ba gañe nga xam ne day taxaw si buntu këru gaa yi euh, xas leen yuuxu dem loolu la kon ne def pour man aussi il faut pas que mu xalaat ni na mu nekkee woon opposition noonu lay kon ne nekk maire parce que man élément bi ma dégg léegi rajo journaliste wax que ni provocation bi ay dara moo tàmbali provocation bi dem ba buntu maire yi wax ki naan Nimzaat am la mu fa wax si buntu maire bi ñu la kenn mais je crois def devrait permettre a quiconque à ku nekk def li muy def mais Ahmed Aïdara moom responsabilité am dafa gën a mag parce que c'est le maire de Guédiawaye mm-hmm. c'est à lui qu'incombe euh, la sérénité en tout cas l'apaisement du climat à Guédiawaye loolu il faut mu jiital ko parce que c'est le maire mm-hmm. coow bu fa amee moom moo ko war a régler bu fekkee moom coow mu ngi ci biir salante xel mi ngi ci biir même ay nitam bu ñuy déconné war na leen wax ni bu leen def nii mm-hmm. mais la ma la waxoon ñëwaat na discours ba tax yeewi toll fii mu toll est-ce que dina ko bàyyi parce que yow bu fekkee yuuxu sànni avec la jeunesse ah fëgg sur la table moo tax léegi. nga taxaw am doole. même boo toogee man nga ko bañ a bàyyi te peut-être que loolu looloy danger. boobu nag dafay fekk benn bennoo boo xamante ne euh, ñi fa ne ñi fa féetee euh, ku ci mel ni euh, Aliou Sall ku ci mel ni Néné Fatoumata Tall dafa mel ni ñoom dañu taxaw. pour jël seen revanche parce que bu ñu déggee seen discours yi <coughs> ak yenn si euh, en tout cas kàddu yu ñuy yëkkati. Mm-hmm. dafay mel ni bële daf leen a bettoon. et cette fois si euh, dina nekk remontada comme on dit. mais bu ñu ko defee si violence ñoom it c'est pas parce que am nañu leen mer lu ñu guux. te déjà est-ce qu'ils ont des chances pour. Euh, bien sûr qu'ils ont des chances parce que boo dégloo la manière dont nga seetloo les locales se sont déroulées avec les listes parallèles si mën na la jox quelques exemples ci li ma dégg médias yi di ko joxe. fu mel ni à Kolda on te dit jaw Mame Boye Diaw sol na dàllam dem seeti Abdoulaye Bibi Baldé alors que les locales c'était inimaginable. Mm-hmm. ñoom ñaar. Mm-hmm. ku nekk jaar fale nga ñëw à Guédiawaye nga gis également cette unité bi nga xam ni ñoom ñëpp ñu ànd dem parce que il y une question de survie je crois que c'est ce qu'ils ont senti c'est ce qu'ils ont senti local bi dañoo sentir ni mais le danger est peut-être que loolu moo gën a motiver seen déggoo à Dakar également bien que il y toujours ah parce que ñu ngi may yëgal ni rek euh, il y un cadre boo xam ne jóg na pour contester Amadou Ba xaw ma Amadou yónni lañ ma wax démb. Mm-hmm. ma parce que c'est des jeunes du Parti socialiste et de la l'APR yi nga xam ne ñoom euh, il ne tolère pas à Amadou Ba mm-hmm. euh, mu dem mu ne parce que Amadou bi Moussa si demee ay ay xaritu ay ay jeunes Amadou Ba. di xeex Moussa si durant toute la campagne te Amadou Ba moo waxoon en réunion que ni Macky Sall dama bëgg Moussa si nekk candidat wu Benno les gosses nag ne comprennent pas pourquoi Amadou Ba ne woon moom Moussa Sy mooy candidat bennoo ba pare bàyyi leen ñoom ñuy xuloo ak Moussa Sy di xeex waxu leen dara loolu ces gosses là ne tolèrent pas jusque là que Amadou Ba bàyyi leen si loolu mais lu ci mën a dem donc il y a des contestations un mais dans l'ensemble je crois que Benno va reprendre son unité pour la plupart dans les localités xam njànka te loolu quoi qu'on dise bu ñu boole seen doole à Ziguinchor gis nga ah ngi boole maintenant c'est un défi ah, pour euh, Guy Guy Marius nga xam ni Ziguinchor mooy tête de liste donc bu ñu ko jëlee rek du point de vue politique et électoral je crois que c'est des élections assez intéressantes yoo xam ni Sénégalais yi mën nañ ko suivre fu ñu jeexalee mooy la question du troisième mandat Euh, mi ngi euh, nekkaat en tout cas euh, ci au cœur des débats gis nañ Ismaïla Madior Fall ak Mary Teuw Niane sur les <laughs> réseaux sociaux et tout ça tey euh, leer na wala leerul parce que y en a qui disent que ni maintenant c'est c'est clair euh, surtout ak euh, yenn ci structure ñuy tudd américaine nga xamante ni jot nañ fa signer Sénégal pour pouvoir peut-être revoir l'image du chef de l'État par rapport ak ça ah, est-ce que déjà mën nañ ni bu ñu sukkandikoo ci point yooyu yëpp mën nañ ni peut-être c'est clair que le président va il veut il veut un troisième mandat ça je crois que ñu ngi xool mais xam nga dañuy dem rek te Macky Sall il jour sur ça sur ce flou là naan non dina dem du dem ba affaire bi ne nii non tous les actes qu'il pose loolu la ah, euh, pour preuve ñu njëkk a wax ni warul dem mais daf leen a dàq daf leen a dàq il y le le secrétaire d'État chargé de Sénégalais de l'extérieur ah le jeune de Fatick la mais daf ko dàq loo waxee loolu te ku wax ni de euh, mën nga dem kenn loox dara Ismaïla Madior Ismaïla Madior attention li tax mu génn gouvernement bi loolu la bi mu waxee en principe looloo tax mu génn les gens bàyyiwuñ si xel mais léegi ñoom ñëpp delluwaat dañu la ñu waxoon Mimi dafa taxawoon ne président warul def troisième mandat mm. mais tant que mu jub waxatul loolu mais c'est un problème c'est un problème le président Macky Sall moo tax léegi Ismaïla nee na léegi daal la responsabilité incombe au président nañ ko bàyyi mu wax mais Mary Mary tew ñaan li mu wax la constance il faut saluer la constance de Mary Teuw Niane te gis nga euh, pouvoir buy daanu ña ko ŋànk ñooy commencé euh, bàyyi bu ma daanu c'était valable pour Diouf c'était valable pour Ablaye Wade c'était affaire bi du opposition bi rek moo lay daaneel de mais quand ceux qui sont avec toi qui sont censés te soutenir dem ba ci biir daal di nekkat yow waratoo dem waratoo moo commencé am bis bi loolu ñi ngi koy commencé gis si biir Benno Bokk Yaakaar te président Macky Sall bu fekkee ñi ko ŋànk ñoo ko commencé bàyyi il y des risques même bu demee mu ñàkk mu ñàkk pouvoir bi en 2024. Mm. merci beaucoup Babacar. merci Astou. ñu tàggoo. waaw vendredi prochain. non vendredi on va faire encore le truc et puis dina fekk campagne bi. dernier jour campagne yi ah. c'est ça et puis hémicycle également on aura l'occasion de suivre hémicycle. ngoon kan la koy indi. Euh, surprise. <laughs> surprise <laughs> d'accord donc hémicycle ce soir à partir de 21h avec Astou Dione ce soir donc euh, ngeen suivre ko juste pour permettre aux candidats de s'exprimer et surtout. Mm. wax ñu lan la ñu nar euh, dégtal ñu ci sen quatorzième législative merci beaucoup. aux techniciens au ji merci aux téléspectateurs di leen jox rendez-vous ce soir donc dans l'hémicycle euh, passez un excellent week-end